rawatina ñiy topp émission bu mag bi di émission daayira yi ni leen ko waxee woon tey nag mbokk yi émission daayira yi dafa doxantu ñëw fii ba nga xam ne mooy jéemoon fekk fii daayira bi ah, war waxtaan ak ñoom ci ci ci kàddu ci ay ci ay tënk ngir ñu bàyyi xel gën a gën xam daayira bi lan mooy bëgg-bëggu daayira bi lan mooy jumtuwaay daayira bi lépp loo xam ne waroon nañ koo xam ñu xam ko ñu ngi gis ma toog seen jëwrin waaw moom la war a seqal ah, waxtaan wi.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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina yéen waa daayira soppi Serigne Amsatou Mbacké ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare ginnaaw bi ñu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa di santaat bu baax sunu yaakaar àdduna ak àllaaxira te mooy si Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu di tawér waaye noonu lañ koy ñaanalee ki nga xam ne mooy kilifa jotaay bi. te moo tax ñu liggéeyee liggéey bi te mooy Serigne Amsatou Mbacké di ko ñaanal moom mu yàgg fi loolu te wér di sant mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñuy seet ci tey te mooy waa 28 Pro ñëw fii ci garage Daaru ngir nemmee suku liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba te di ko jaarale ci am Amsatou Mbacké ñoo ngi leen di sant bu baax di am kontaan ak mbégte loolu ci ñëw geen fi ñëw di fas yéene ànd yéen liggéey bi rek incha allahu rabbi. Ah, jërëjëf bi kàddu yi am na leer na. soo ko defee mbokk yi ni xamee rek mu doon kuréel boo xam ne mu doon daare boo xam ne mooy soppee sëriñ Hamsatu daare boo xam ne dañuy liggéeyal sëriñ Touba waaye jaarale ko ci sëtam muy sëriñ Hamsatu Sohaybu waaw ndax liggéeyal sëriñ Touba itam baax na waaye teg ko ci loxol nit mu tegal la ko ci loxol sëriñ Touba itam moo gën a wóor yaakaar na waaw mu ngeen jaarale ko ci uh, sëriñ Hamsatu Sohaybu di jàmbaar loolu moom tamit ci yoon wax dëgg yàlla doon koo xam ñu ngi koy dégg fu nekk waaw ak turam itam yegg fekk mi ngir ak jàmbaaram moo tax mu ak turam yegg foofu noonu su ko defee dañ def loolu rek dugg ci euh, euh, ci waxtaan wi mm-hmm. euh, sëñ bi daara bi daara la boo xam ne mbooloo mu sos la ngir liggéey liggéeyal Serigne Touba daara bi ndax mën nañoo xam sëñ bi daara bi naka la kañ la sos kañ la sosu doon na daara boo xam ne daara bu yàgg la wala daara boo xam ne maanaam yàggul waaw ndax na nañoo xam daara bi kañ la sosu. macha allah ku baax gi laaj bi am na solo trop danañ ci sawar loolu ci tontu ci mooy daare bi kañ la sosu daare bi mu ngi sosu ci atum 2019 bi ci jeexantal bi kon 2019 yaakaar naa ñeenti at ci lay toll lu juróom muy daare boo xam ne nag ay soxna yu am pësteef doon ay tut tànk ñoom la tubaa Touba la ci seenum xel daa nekk man wax na juróomi soxna rek ci la daare bi tàmbalee. ñoo nekk noonu suñu ginnaaw ñu tàmbale ko ci atum 2019 nag daan ci doxal ñu def chaque aju bi ñu dajee di waxtaan ak nu ñu def ba mën a liggéey lu borom tubaa waaye nag am murid lépp lu muy def rek da koy teg ci kaw ndigal ndax Sëriñ Touba daa waxoon laa taf xandu saen bi xayri isnin wala isnin sartun fi xabuul ndigal loolu nag bi ñu doxalee ab diir ci leen wëlbatikuwaat gisee ki nga xam ne mooy Sëriñ Amsatu Mbàkke leeral ko liggéey bi moom it mu gis liggéey bi nangul ñu liggéey bi tudd ñu aw tur tudd ko ne bu leen demee ngeen tudd ko soppay Serigne Amsatou Mbacké kon daari bi nekkul mbooloo moo xam ne dañoo dajaloo bëgg daari def daari déedéet dañ ci am foofu la daari bi ci saanoo. macha allah si bi jërëjëf macha allah comme ni nga ko waxee ci biir waxtaan wi laa tafaaloo shay'an bi ghayri isnin fa lisnu sortan fi xabashan ni ko ne bu leen def dara ci lu ndigal la sosoo ndigal la sosoo loolu macha allah am na solo su ko defee itam sëñ bi ndax mën nañoo xam daayira bi léegi dañuy gis maanaam daayira yi bari nañ trop. daanaka foo foo dem dañu fa gis ay daayira foo gis ay daayira ndax mën nañoo xam tey am nañ gis gis nañ naan daara yoo xam ne maanaam day day day day xaw a lool da ngay gis daare yoo xam ne da ngay àgg fekk fa ñii di di tëgg ñii di kii xeet yooyu noonu daal mm-hmm. ndax mën nañoo xam ba xam daara bi ndax wuute na ak yeneen daara yooyu noonu waaw ndax loolu ndax mën nga mën nga mën ngañ cee leeral ok jërëjëf Cheikh bi maanaam laaj boobu dinañ sawar lool maanaam daara bi moom daa wuuteeg daare yu bëree bëree bëri ndax ki nga xam ne moom lañ koy defal am sa du Mbàkke moom la ñuy xool rek ci ay programme am ak ci fi nga xam ne fi lay jaarale ay taalibeem foofu la daare bi jaar te Sëriñ Amsatu Mbàkke ku xam xam ne léppam xasida la kon daare bi mën nañu wax ne xasida moo ci jiitu mooy bu ñu ñëwee ci waxtu cinq heures yi xale yi ndaw yi nekk suñ ginnaaw ku ci mel ne soxna Loota ak am sa ñoo leen teere ci xasida yi ngir ñu mën koo jàng mën koo mokkal su ko defee tamit bu demee ba ci wetu ñaan gi dana am jëriñ ju jug soññee fi ci mbindum Sëriñ Tuubaa ak soññ xale yi tamit luy tax ñu gën a sawar ci daayira bi waaye daayira moom wute naa yeneen daayira yu bare bëree bëree bëri ci wàllu xeetu caaxaan yu mel noonu moom waaw dul jàng xësi daal ak defaru ak tegu ci siraata mustaqim loolu moo ko tax a jug macha allah sëñ bi am na solo kon lañ ci mën a déggee bi wute naag loolu yeneen daara yi ñuy gis ndax waaw wute naag loolu yeneen daara yi macha allah kon noonu la ko Sëriñ Tuubaa bëggee wax dëgg yàlla su ko defee itam sëñ maanaam ndax mën ñoo xam daara bi naka lay doxee ci wàllu teg ndax dañuy gis daara yi am na ñoo xam ne chaque mois la ñuy teg ñii chaque année ñii ma gi naka naka ngeen koy naka ngeen koy doxalee wala bu ngeen ñëw daara bi ngeen indaal si ñuy teg wala. maanaam daara bi nag moom li ma la waxoon léegi maanaam Sëriñ Tuubaa da koo jaarale ci xale yu ndaw yoo xam ne ci ay soxna la ko jaarale bu nu amee 15 ans ci lay toll wala ay 13 ans daanaka ku ci am gun 18 ans bëriwul. moo tax it teg bi dañ koo oyofal tàmbale ko ci benn bu dee xale yi ndaw yi fukki dërëm la ñuy indi chaque ajjuma bu dee xale yu mag yi cent franc indi loolu loolu la bi doxee bu dee xale ndaw yi fukki dërëm la indi bu dee xale yu mag yi cent franc la ñuy indi ku man tamit chaque weer nga joxe wala chaque at bu ñu demee bay jëbalu ku nekk xam nga liñ la sas nga mën koo joxe loolu daal la daara bi doxee. macha allah bi am na solo kon daara bi noonu lay doxee ci wàllu teg. ndax na ñoo xam itam ba tey siñ bi teg boobu noonu ñuy teg di ko soññee ci xale yi ñu koy teg mag ñi di ko teg buñ paree ba mu dajaloo naka ngeen koy jëfandikoo maanaam da dafa am ñoo xam ne dañuy def ay cant ñii dañ koy jébbale ndax mën nañoo xam ginnaaw ba teg ba dajee ba noppi naka naka naka ngeen koy ngeen koy jëfandikoo. ginnaaw bu teg bi noppee nag moom ñu ko doon saytu ñu yoroon wàllu teg bi buñ ko dajaloo ba mu dajaloo dañuy jëlaat lépp jébbal ko Serigne Amsatou Mbacke moom nag mooy xool fu koy dugal ndax daayira bi jëbbalagu na ñaari yoon bi ko dalee def ba léegi jëbbal dem nañ sëñ bi ñaari yoon ñaari yoon yëpp tamit liñ jotoon dajale lépp dañ koo jox sëñ bi amuñu dara luñ ci bàyyi kon daayira bi xëy na nag mi ngi xalaat ay cant ak yu mel noonu waaye nag tàmbalee gu ko moom waaye nag mi ngi ci ay ay bëgg-bëggam mi ngi ci ay projet am nag waaye daal lii li nga xam ne mooy cosaan la moom mooy dajale nit ñi ñu dajaloo gën a defaru ci mbind di gën a jàng xaside yi ak di indi seen addiye ñu koy joxal Serigne Amsatou Mbacké loolu daal mooy ci sànni dëgg moom leneen lu ci war topp nag incha allah bu ñu ci toppee ay cant yëpp rek daneen ko àggale li sëñ dox incha allah sëñ bi am na solo lool macha allah kon loolu lépp mi ngi ñëw dafa ñëw gulaa mi i ñëw incha allah yal na ci yàlla fi euh, ndimbal ah, bu ko defee itam sëñ bi liñ liñ bëgg a xam itam mooy daara bi naka lay organisé woo ndax dañuy gis mbooloo daanaka bu tàmbalee dañ dañ naan kii mooy njiit li kii mooy secrétaire kii mooy nangam ak nangam ndax yéen seen mbooloo noonu ngeen ko noonu ngeen ko organisé. waaw mbooloo moom faaw day am ku sunu boroom jiital ndax njiit mënul ñàkk biñ defee daare bi ñoom soxna biñ ko xalaatee ba noppi seen bopp ñoo jël jëwriñ ji féetle ko man waaye noonu la noonu ñu ma ko féetlee tamit teewul noonu la soxna yi amee jëwriñ waaw soxna yi am nañ jëwriñ am ku topp ci moom. am ñoo xam ne ñoo yor wàllu xaalis bi am ñoo xam ne ñoo yor wàllu alamaan bi ku ci mel ne soxna Anta moom it ci jëwriñ la bokk ak ku ci mel ne soxna Lóot nga xam dañoo wutaat jeneen juróom yoo xam ne ñoo yor bureau bi ñooy xalaat daayira bi lu koy doxal ak lu koy suuxal ak luy tax mu gën a jëm ci kanam waaw ndax mbooloo moom bu nasoo rek te kenn jiitu ko rek da ci am solo trop waaw. macha allah sëñ am na solo lool ndax mbooloo moo gis moom pour mu mën a jëm kanam daanaka dañuy am am ñoo xam ne ñooy ñooy ki ma féetewoo lii ki ma féetewoo lii waaw su ko defee itam kon ne xam na ne mbooloo mu sosu dafa metti wax dëgg yàlla loolu moom ku ne xam na ko da nga dégg lu ne wax dëgg yàlla rawatina mbooloo moo xam ne dañoo jug ngir jëf lu baax daanaka da dégg ay trigue yu ne nga ko dégg ndax loolu noonu yéen a ngi koy jàng yéen a ngi doon jàngonteel bi bi wala yéen a ngi koy jàngon moom ba léegi nii ndax loolu mën nañ cee am mën nañ cee am ay leer. xam nga liggéey Sëñ Tuubaa moom daa musta yomb ba ci sëñ ba ci Sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ñu topp mooy suñu yaakaar àdduna a laaxira kon ne gis na fi mu jaar kon lu baax moom képp ku koy taxawal ba boo nga séentu ay coono ak muñ ndax soo ko defee rek mooy tax fi nga bëgg ak nga àgg fa ndax koñ bi bi ñu tàmbalee xale yi tàmbali nañoo ñëw euh, ñu yaatal ko waxe ko ci koñ bi woo ci ñëpp nag bàyyiwuñ ci kenn woo ci mboolem ku bokk ci koñ bi ñii da wuy si ñii tamit duñ wuy si ñii tamit da bëgg a wuy si waaye amaane seen waajur ñoo leen di gàllankoor waaye loolu lépp tamit teewul soxna yi nga xam ñu jiite daare bi ñu ngi dem ci di waxtaan waajur yi di leen xam ci li leen xëcc ndax te it neexul nga yor xale bu ndaw na muy jigéen sekk ajjuma muy dem te xamoo fu muy dem day baax loolu nga xam fa muy dem ak la muy def mooy lan moo tax ñoom it ñu ngi ciy def liggéey bu am solo mooy di dem ci kër waajur yi di leen di leen leeralal liggéey bi ak dajale gi leen dajale fii ci ajjuma ji loolu lépp ñu ci jàkkonte ay coono yu bëree bëri waaye dañuy baax ndax am nañ a daal mm-hmm. macha allah sëñ bi macha allah loolu ci mbooloo mbooloo moo gis dina am loolu waaw boo ko defee itam sëñ bi lan ngay soññi ñi nga xam ne am nañ yéene ji comme yéen soo demu ngeen ba nekk ci liggéeyal Serigne Touba lan ngay soññ ñi nga xam ne am nañ yéene ji bëgg liggéeyal Serigne Touba lan nga leen soññi. waaw ñi nga xam ne bëgg nañu liggéeyal Serigne Touba moom li leen di soññ rek mooy Serigne ne woon waq di xawaay jël la siina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu mooy adduna bi ni jafe-jafe yi mel nii ak tiis yëpp li ko war a mooy ñàkk liggéeyal Serigne Touba waaye sëriñ bi ne woon na bu ngeen saxee ci di ma liggéeyal lu ngeen bëgg àddina ak àllaaxira suñu borom moo koy fañ kon tamit suñ jotaay bii ak suñ daayira bii ñoo ngi ci woo képp koo xam ne taalibe sëriñ tubaa nga wala ngay soppe sëriñ Amsadu Mbàkke ndax liggéey suñ Tuubaa baax na lool waaye nag teg ko ci ndigal da koo gën ndax loolu lañ sëñ bi jàngal loolu la sëñ bi bind kon na ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwun kenn dina wax daal daara la boo xam ne ay xale yi ndaw a ko jiite man wax nañ ñu si bëri amagun ay borom kër kon ñooñu te ñu góor góorlu te sëñ bi gis na seen liggéey nangul na leen seen liggéey tamit kon daal ñoo ngi ñaan ci mbokki soxna yépp rawatina waa koñ bi day reb nag xale yi taxuñu koo jug ndax léegi Sëñ Tuubaa amul mag amul gone ñëpp ci xaj kon dañoo bëgg ni xale yi ñëwee seen waajur yi di ko ñëwee seen i waa kilifa sax seen i baay bu ma nee teew daayira teew daayira ndax daayira jëmul kenn ndax day dugg ci jotaay yi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa waxoon ci tasawudu si xaar muy wajitani bu majalis saxaawa dafa am jotaay yoo xam ne jotaay yi texee ji la waaye ku ne xam bokkul ci yooyu waaw kon nag daayra bi ñoo ngi ci sant bu baax di ci woo ñëpp rek bàyyiwun kenn incha allah rabbi. macha allah sëñ bi macha allah am na solo lool yéen a ngi ci woo ñëpp kon mbokk yi yéen a ko déggandoo daayra bi ibni buntam képp koo xam ne am nga yéen a liggéeyal sëñ Tuubaa mën ngaa ñëw ànd koog ñoom waaw macha bu ko defee sëñ bi say kàddu mujj. waaw comme nañ ko waxee rek maanaam daayra bi am na groupe ndax daanaka jamono ji léegi li gën a gaaw ci tasaare mbir mooy uh, réseaux sociaux yi. Mhm. whatsapp bi internet bi. kon am nañ groupe boo xam ne képp ku jokkoo soxna Anta wala soxna Loota dina la mën a tàbbali ci daare bi wax la tamit li nga xam ne moom la daare bi doxee. ndax daare bi li ci am solo mooy ajjuma bu ajjuma lañ koy def ajjuma ba ajjuma ci ginnaaw toog saan lañ koy def te loolu yaakaar naa ku ne Sëñ Tuubaa war na la koo jaral. rawatina ci waxtu yi ñu koy def muy waxtu six gi nga xam ne lu am solo moo ci am mooy wax nañ ne ajjuma dafa bokk ci bis yi xam loo ci ñaan rek day nangu waaye rawatina waxtu six bii nga xam ne wax nañu ne ci la malaaka yi nangu ñaan loolu ñu bëree bëree bëri heure bii nii ci six heures da fekk seen siyaar kon daal ñi ngi ci woo ñëpp nag bàyyiwuñ kenn di wax na daal daara la boo xam ne dañoo tënku ci liggéeyal sëriñ tubaa ak jàng xasidaam yi ak xale yi tegu ci yoonu siraatal mustaqim mooy la waxoon ne yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil xuluumi staxilu fastaxilu bil xifsi wa tilaawa wajtanibu majari saxaawa waaw kon ndaw ñi moom Sëriñ Tuubaa wàccoog naa ñoom li leen dénk mooy na ngeen sax ci ak njub ak wuti xam-xam te daayira ci la bokk kon nag ñoo ngi tuubal ñëpp tey jégalu ci kàddu yu baax di leen sant tamit yéen waa 28 pro di ñaanal suñu borom gën a yaatal seen liggéey ba fépp fu ñuy dégg siit yu mag yi ñu di leen fa dégg ba ngeen dem ba am ay télé télé ci barke borom Touba sant nan bu baax nag kontaan nan bu baax a baax yàlla nañu suñu borom dugal ci waq di xawaa ijale si na daamu fi xidmati wa hablahu maaraamu tànk yi ñëw yi ngeen indi daal ak tànk dem yëpp yàlla doon aw yiw ndax suñu suñu xol sedd na guy ndax lépp lu baax moom képp ku ko yaatal rek dafa mel ne ca ña ca ñay def lu baax ca nga bokk kon nag ñoo ngi sant bu baax di ci gërëm bu baax a baax jërëjëf sëñ bi macha allah na solo su ko defee itam am na ñoo xam ne ñu ngi teewlu ñu ngi bàyyi xel buñ tamit bu jàllee itam dana am ñoo xam ne ñu ngi ko doon bàyyi xel bu ko defee ndax mën ngaa joxe numéro boo xam ne tey ku doon bàyyi xel bu bëggee bokk daara bi dina mën a jaar ci li numéro boobu ba mën a ba mën a intégré ci biir daara bi. waaw waaw loolu tamit dina dina dina mën a nekk kon numéro bi ñu jox naa ma joxe sama numéro muy 77 309 95 39 muy 77 309 95 39 incha allah rabbi képp ku ci woote rek. te bëgg a bokk ci liggéey bi ñu liggéey Serigne Amsatou Mbacké incha allah dana la dalal dana la waxtam fi ngay jaar ba nga bokk ci incha allahu rabbi macha allah kon mbokk yi numéro noonu ni mu ko joxee koo xam ne am nga yitey bokk ci daara bi mën ngaa jokkoo moom ci numéro boobu incha allah di ngeen déggoo temps nga intégré ci kii ndax liggéey Serigne Touba wax dëgg yàlla ndax jamono bii gis nañ nim ni mu yàqoo nga gis xale yu jigéen ñi niñ toogee nii ah, ñëpp yiw lool ngir toog rek ngir liggéey Serigne Touba loolu di dëgg yàlla ndax léegi daanaka jotaay yi bari na loolu te du doon jotaay yoo xam ne jotaay yu jotaay yu baax la comme jotaay yi dëgg yàlla ñu bàyyi seen lépp ñëw li def man li di leen ñaanal bu baax a baax suñu borom gën leen dëgëral ndax ñoom ci yéen la xool waaw jërëjëf bu ko defee mbokk émission daayira la woon dafa doxante woon fii ba da gaasu daarul moxti ci daayira sopp sëriñ xam sunu Mbàkke Suhaybu doon waxtaan ñoom ci seenub daayira ah, doon waxtaan ñoom ci jëm ci biir daayira képp koo xam ne yaa ngi teewlu xam nga lu baree bari loo xam ne xamoo ko woon waaw bu ko defee lu ah, ñu def lu di leen ñaanal te di leen jaajëfal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu